bisimila DGE fi mu tegoon tànkam ba tey teggiwu ko ci mbiram fiche de parrainage yi mu war a jox Ousmane Sonko lii la yéene yu bari xëy xamal ñu réew mi quotidien ne démb mandataire Ousmane Sonko ba gontooti na ca DGE yóbbaale cantaan ak Sénat ngir ñu jébbal ko ay fiche de parenage waaye direction général des élections lank la defati ba tëdd ca naaj wa tax ay awkaay Ousmane Sonko réew mi ne ñu sàkku ci Sénat mu wuutu DGE jébbal mandataire Ousmane Sonko ay fiche de parrainage mu mën a waajal élection présidentielle bi témoin ne càkkuteef wu bees la awkaay Ousmane Sonko yóbbu ca kanam Sénat ne Doudou Ndir defal li DGE waroon a def daaf moom la ko war def na ko ndax yéenekaay bi nee na dugalaat na Ousmane Sonko ci fichier électoral bi gannaaw bu tribunal bu Sigicoor àttee ne noonu la yëf yi war a demee demub Ayib Daffé ga ca DGE mu demee démba moom la Vox Populi xëy di ñu nettali nenu ba duggee ca daaf loxoy neen la fa génnee ñaaw lu njuuj ndaaj gu ñu lal ci wàllu politique ak xoqatal gu ñu nekk di def candidat am Ousmane Ayib Daffé it nee yëf yi fu nu ko war a xeexee rek daanu ko fa xeexee moo xam ci làngu politique bi moo xamit ci kanam yoon ci biir Walf Quotidien Ayib Daffé ne banditisme administratif la direction générale nekk di def DGE mooma nag Walf Quotidien nee na ma ngay wéy di lànk jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage la tax Sud Quotidien biral ay jiixi jaaxa yu am ci traa yu njaaxanaay bu DGE mi war a organiser élection présidentielle bi nu dëkmal mu njaay si sene weesu na ko moom directeur exécutif bu d joxoñ coow lu nar a juddoo yi yéene kaay bi di leen fu xamal ñu ne awokaay Sonko ans ngir balay wutum parrainage du wees ñu wuutu DGE def li leen war jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage yor yor bi ne bu weesoo wuutu DGE jébbal Sonko ay fiche de parrainage awokaay Sonko itam sàkku nañu ci Doudou Ndir mu daan ca Ndeela booba jamono président Macky ma ngay tagg général Moussa Fall rafetlu liggéeyam réew mi quotidien ne kàddu la yum yëkkati ba muy inauguré siège état major bu gendarmerie ci xët gu njëkku réew mi quotidien gi jaarut yoon cybercriminalité ak réseaux sociaux yeeg njombe yi cay am journal bi xamal ñu ne fanweeri junneeg juróom ci ay gendarme la Sénégal bëgg am fii ak atum la le soleil dëggal ko ne loolaay jubluwaay bi ngir yokk doole gendarmerie président Macky Sall ci yéenekaay bi ma ngay wax li waral ñu tabax siège bu bees tàq ngir gendarmerie bëgg ñu méngoog jamono nee na bokk na ci li ko sabab moom Macky Sall nag le soleil nee na tagg na général musa Fall yeesalaat itam kóolu téem ci moom muy kàddu ci juróom-ñeenti légion juróom benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juróom ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi brigade waaye soldat bu baax Macky Sall nee na boo koy wër ba gis général musa Fall mën ngaa taxaw ni muy doxalee liggéeyam njiitu réew mi ngi koy rafetlu ci yéenekaay bi di Vox Populi ci Les ko moom daanaka président Macky Sall tagg lay def général musa Fall mim ne liggéeyam mi ngi koy def ak fulla ak fayda def ko it ci kaw professionnalisme gu mucc ayib Macky Sall dolli ca ne général Fall soldat bu baax la soldat bu réew mu ne soxla ndax saa yu xëyee lay yokk doole bànqaas yi réewam ca lay dox awokaay Ousmane Sonko yi ñoom ña ngay dox wutali cour suprême gannaaw pourvoi ba agent judiciaire de l'état def ci àtteb juge Sabassy Faye les échos mi ñu ko xamal nañu awokaay Ousmane Sonko yi tontu nañu seen mémoire en défense déposé nañ ko cour suprême nag la ñuy déglu fi mu ne te audience bu gën a jege yéene kaay bi nee na daanu leen ci dugal enquête booba jamono mel ni ko am xel ñaar ci liñ na dugalaat nañ Sonko ci fichier électoral bi waaye ci libération ay awokaam ña ngi koy dëggal ne Sonko ko ci liste électorale ne électeur la te éligible na li des kay avocat yi neenu mooy ñu jox ko ay fiche de parrainage am bés bi sax xëy ci wàllum parrainage neenu yëf yi dañu koy weccee carte sous table la ko yéenekaay bi tuddee yóbbu ñu ca banlieue bu ndakaaru ne foofa daa joxe ñeenti téeméer mbaa junni ngir ñu mën laa parrainer Jurbel moom yéenekaay bi entrepreneur électoraux la fa gis ne seeni affaire a ngi baax am na ku ne juróomi téeméeri fiche la jaayee benn million la ko waral nee na gaa yi parrain la nu soxla te moom dafa am lu ko war ci njaboot la tribune booba jamono samp aw xaalisu covid bi ñu ne dañu koo lóobal yooya milliard mbaa nu koo fàtte yéene kaay bi ne ëpp naa def ndax wi lépp njombe ñépp la yëngaloon ba ca bitim réew te it mbir la munu mënta fàttee ni ndax dafa yomb ba ëpp ci gëtt yéene kaay bi l'observateur booba jamono jox kàddu ay boroom xam-xam ci wàllu demografi ak économie ñuy artu ci ndaw ñi ni nu baree ci askan wu Sénégal gannaaw recensement général bi ANSD def l'observateur ne nu ndaw yu sakkan yooy ci askan wi mën naa nekk charge ci état waaye lu baax la ngir booba jamono coowal néewub ki ñu ne góor jigéen la tën taaloon ko fa ba tey fayagut yéenekaay bi di l'observateur gannaaw ba mu ñu yeggee ndénkaane Cheikh Fall yu mujj ci way juróom wu jigéen ak dundam gu yëngu woon nga ca Kaolack ma nga nuy xamal it fa enquête police ba tolloo libération ba ba jamono yeggee ñu li tukkee ci enquête suuf sanu luubal ca Sicap Liberté 2 nee tudd Cheikh Diallo moo lijjanti ay këyitam ànd ci ak notaire yi di maître Binta Rafet Diouf woon da caa raxasu ba set raggu deram takkal ñaari notaire yi ca woowale waxtu lanu source a di xamal ne Madiambal Diagne terrain ba mu doon xëccoo di titre foncier 44 19 ca Ngor Almadi ñàkk na ko ndax dañu ko faa dàq Vox Populi di ñu xamal ne coowum suuf am na ci mbey sax ñu tegoon loxo maire ba di Njañ Jóob ak adjoint wam lataa ñu leen di bàyyi jaara mu seen petit gàlle mi woon micro bi réew mi quotidien ne jëlaat na ko tey ngir waxtaane carrière am seen petit gàlle googu fësal ko entourage am di ko wër waxtaan wu yaatu la sekk ak Anna Thiaw ci réew mi quotidien booba jamono stade di waxtaanee joueuru sénégalais yaak seen nekkin ca olympique de marseille ne yàgg na lool ban fa tàmbalee jongante waaye yéenekaay bi ne jongante yu tegu ci pression la Modou Lo moom ci sunu làmb mel ni ko amut pression ndax ma nga naan amaa balde maa ngi lay xaar loo bax naa ko ngeer combat bi may borom te itam tëj naa lépp doomi parcelle bi it nee na ndamam amu ca xel ñaar ñu ngi leen di ñaanal kenn dal jàmm ba ëllëg incha